nga Malick tamit. bon les élections se sont bien tenues dans dans l'ensemble mais il y a eu des entorses eh, ci ci ci ci élections locales yi eh, gis nañu liste suppléant eh, de de de Yewwi Askan bi ñu ñu ko invalidé woon même dans un premier temps la liste départementale de de de de Dakar. Mmh. gis nañu mais vous non la liste de Dakar. Des législatives Non, les locales. Je okay. de de des, des, des, des, Non, je parle des législatives. Des législatives. Euh, pardon, je parle des, législatives. Alors, euh, 2018, gis nañu instituer parrainage bi. Euh, assemblée voté ko conseil constitutionnel euh, légitimé ko. Mm -hmm. ça ne s'est pas bien passé. Mhm. beaucoup mm -hmm. de candidats recalés. ñu ñëw ci ñu locales yi ñu indi waxu parrainage. beaucoup de gens n'ont pas pu euh, n'ont pas n'ont pas pu compétir euh, invalidation liste les gens ne s'entendent pas euh, sur les sur sur les règles du jeu gis nañu ñu modifier le code électoral à la veille de l'élection présidentielle euh, rendre inéligible deux candidats boo xam ne xëy na bu ñu compétiroon le résultat aurait été aurait été différent oui, donc avec tout ça on peut difficilement croire aussi euh, qu'il n'y a pas une tentative de manipulation des des des règles xam nga xam nga comme on dit avec des si on peut détruire ouais, mais c'est moom laa la wax par exemple non moom laa la wax léegi léegi li nga xamante ni moom moo am ba des est-ce que ñun aussi dañu war a am ju euh, ñun les acteurs politiques chaque fois bu ñu la waxee ni la justice am na problème rek c'est parce que un acteur politique moom moo ko laal c'est-à-dire que combien d'hommes et de femmes ñooy am quotidiennement maay à partir avec la justice ñu juger leen combien de fois gis nañ fi un ancien premier ministre wax ni que par exemple am un dossier avec euh, son épouse tout le monde a dit que non euh, euh, la le, le, le truc est derrière le pouvoir est derrière mu dem il a eu gain de cause combien de fois la ñu mën dem man dama bëgg parce que. waaw mais pourquoi ñu xaar. waaw parce que je, je termine là-bas. xam nga lan laa bëgg non non non moom laa. ñu xaar. non moom laay wax pourquoi ñu xaar ba mu génn. waaw ba mu génn ba mu jël ses distances ak yéen. ñu door ko ñu door ko génneel un dossier. non non damay wax leen dama ni je suis même pas je suis mal placé même je suis pas bien de parler individuellement de quelque chose mais dama la wax ni la exemple yooyu laa bëgg man ni la suñu justice bu doxul. suñu police bu doxul suñu gendarmerie bu doxul leneen bu doxul moom la ñu ñëwoon waxtaane ko lors de ce dialogue la ce dialogue laa n'était politique que dans une partie wax nga ko sànq ñi ngi wax par exemple la question de de la sécurité dans le pays réellement mais dialogue bi waxtaan na ba wax ci est-ce que waruñoo boole police ak gendarmerie mais loolu waxtaan moom moo koy mën a indi cela veut dire quoi cela veut dire que côté justice bi. non loolu c'est sécuritaire. non moom laa la les vraies réformes de la justice. waaw waxtaanewu leen ko fa. même euh, ñi doon xaar. Mhm. une réforme en profondeur euh, des articles incriminés à la problématique de l'inéligibilité. Euh, xam nga xam nga da ngeen ko da ngeen ko da euh, ngeen rek. non maquiller wuñ dire waxtaan bi sur les vraies réformes de la justice moom amul. Maïmouna est-ce que xam nga il y a un comité de suivi parce que temps bi gàtt na lépp li nga xamante ni bëggoon nañ ko waxtaanee en profondeur bu ñu ko fi doon waxtaanee xëy na dina impacter sur le calendrier mu am un comité de suivi et je vous dis une chose quand vous prenez bon madame Marie Angélique Savané quand vous prenez le général Seck quand vous prenez d'autres ñi nga xamante ni euh, euh, madame Mariam Touré euh, sociologue. am na ñi nga xamante ni bokkuñu fenn faruñu fenn ñoom si Macky Sall si le président avait appelé à un dialogue bi nga xamante ni waxante lu neex la wala euh, euh, nu mu tuddati de raayante wala wax lu neex président Macky Sall duñ ci duñ ci dem et vous avez vu que dafa am ku may wax un jour mu ne ma dialogue bi euh, Macky Sall dafa toog lu ko neex rek la dégg oh que non jour boobu je sais pas si ci étiez à président wax na ba ci yàgg kenn jóg Assane Dia c'est c'est un de nos camarades de Bambey bon je pense que il est il est passé de l'autre côté en tout cas gis naa ko gis taxaw ni ko président man d'accord uma ci li nga xamante nii wax ak ak tàngoor bi nga xamante ni wax nañu li nga xamante ni moom la ñu xalaat mais man dama wax ni bu ñuy bëgg a régler le problème de la justice globalement parce que kenn mënul taxaw wax ni la justice amul problème je te je vous concède que nous avons ni justice amee problème noonu la presse amee problème noonu la santé amee problème malgré les efforts yi ñu ci def noonu la sécurité amee problème mais je veux dire que li may man rafetlu mooy ñu am à la tête du pays au moins quelqu'un qui a vu au moins le chiffon rouge à un certain moment pour dire ñëw lañu waxtaan